Aïcha mbokk internet yi ñuy suivre yéen ñi nga xam ne nag yéenay bàyyi xel solution TV solution info amaat nañu mbégte nag beneen yoon comme niñ ko baaxoo di defee rek suñu génn euh, doxantu changer décor tuuti tey nag ñoo ngi fii si Nord Foire euh, certificat nga xam ne moom la ñuy wax nag euh, Ndiaye Rambo Ndiaye Rambo nag soo ko déggee xel day daal di dem si artiste boobu di Wally Ballago Seck li gën a tax tax tey ñu seet si ko bokk na ci coowal Wally li ñu nemmeeku fan yi ci euh, réseaux sociaux yi waaye balay loolu nag daañu waxtaan ak moom moom Ndiaye Rambo jaar-jaaram parce que am na lu ma ko laaj léegi muy bañ-bañ lu mais loolu lépp dinañ ko leeral si kattanu yàlla yéen ñu ñuy suivre nag euh, teew teewlu leen ngeen déglu ko mu nuyoo ak internet solution TV parce que moom xam naa ni ñun rek lay topp donc duñ ko wax nu muy def Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm. <laughs> sa wàccuwaay. Mm-hmm. di nuyu waa solution TV. Mm-hmm. nga xamante yàlla dafa dogal ma am ceeg affinité ñi nga xamante ni ñoom ñooy borom kër yi. ak ñi booru kër yi. wallaay ndeysaan. Hmm, ñuy ñoo xamante ni. Mm-hmm. dama leen topp di leen siiwur. ndax seen dëggu. ndeysaan xam nga boo xoolee solution TV. da xam ni ba mu juddoo yàggul. mais daa mel ni màgg bi daa jékki-jékki rek na bëxët nit. parce que dëggu gi ngeen dëggu moo waral loolu. maa ngi siyaare yow tamit. Mhm. yow tamit nga jigéen ngay nekk nga jékk jigéen boo xamante ni yaa ngi ci biir ñoom son yu bu ak saa joogu. Mhm. ak Assane Mesere. Mhm. ci dara yaa ngi yokk. waaw mel nga ni yaay. <laughs> mel nga ni soxna mel nga ni sœur. Hmm? sa dajeeg yow nag dina ma neex. parce que xam nga dama la doon gis ci écran bi rek. neex na ma trop. macha allah ah tey ñàkk ki ñaan rek nag Ndiaye mais ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yow tamit nga nekk ku baax accueillir ñu nag comme il faut donc maa ngi la si jaajëfal bu baax a baax comme ni ma la ko waxee rek waxtaan bi dañ koy doo Ndiaye Rambo man bu ma la njëkkee gis nga nekk faux lion ñuy wax waxu simb simb ak démb ak simb tey ni mu demee maa ngi lay wax nag simb daa xew yi meloon démb melatu ko yow nga bañ loolu lu tax non non du lu ma bañ parce que parce que xam nga réalité moom hmm. boo ko waxee ak nit ñi nit ñi di leen xam ne réalité dëgg la simb ni meloon melatu ko hmm. mais boo xoolee tamit même journaliste yi gii ngeen nekk ni meloon melatu ko ah, lu tax ndax amoon na dëgg hmm, ak dëggal mais fi mu toll nii daf ci bari ñoo xamante ni dëgguwuñu mhm. kon li yàqu ci réew mi mhm. dañ cee bëgg a seppi simb bi may def rek mhm. mais boo xoolee làmb ji noonu la mel boo xoolee journaliste yi noonu la mel politiciens yi extra extra fi toll sikki ma laqandoo kon su ma la déggee mooy que Sénégal si jëm boppam moo moo yàqu moo bari ñu dëgguwul waaw d'accord moo bari ñu dëgguwul ah, mis à part simb bi leneen lan ngay def waaw man na xam nga xam nga def naa pas pas mal de métier def naa métier yu bëri def na menuisier. Mm-hmm. def na naa étanchéité bâtiment étanchéité bâtiment boo xoolee boo defee sa terrasse boo bañee mu sedd. Mhm. goudron bi ñu mhm. liggéey naa loolu ba léegi maa ngi koy liggéey. liggéey naa maçon. Mhm. liggéey naa vulcanisateur. liggéey naa tôlier liggéey naa mécanicien. isaan waaw man. boo déggee loom douze métiers mooy man. mbaadu mooy yow. waaw waaw si daal. am naa métier yoo xamante ni maa ngi koy liggéey. mais nag simb si dafa ñëw jël lépp nag quoi. xam nag teewul ba léegi ñun ñu ngi parce que ku jël ku lu mel ni cosaan. yóbbu fa simb. musul am ci simb lañ jël yóbbu ko ci simb. def def ko ci simb muy cosaan. xam nga di nuyuwaale waa cosaan bu baax macha allah. ndeysaan waaw mu ngi noonu loolu parenthèse la woon rek mënu see ñàkk parce que ñi la xam ñu bëri ko ne Njaay Rambo rek xelam day dem si simb. moo taxoon euh, du ñu commencé mukk du ñu wax si li ni mel. donc dañuy dugg sa sa digganteeg waali mi nga xamante ne ni daanaka fan yi moom it mi ngi def buzz. Mhm. yaa ki Wally Seck yow moom demee noonu staff am nga bokk wala sa xarit la wala mm. danga koy liggéeyal. ba tout le temps suñu gisee Wally mm-hmm. gis la si ginnaaw. Wally sama rakk la. Hmm. sama rakk la maa ngi moom ñoo bokk ndey ak baay. Hmm. sa rakk nag defe naa ko liggéeyal. di nga bokk ci staffam di nga di nga di nga di nga di nga. waaw ah, mais déet xam nga xam nga staff dafa nekk loo xamante ne nii yombut a gérer. donc suñu suñu la gisee nga nekk si ginnaaw il mhm. faut tamit nga wax ñu sa étiquette. ci ci ci ci ci wàll yi mooy lépp xam nga loolu day am. xam nga mhm. yow. avant ngaa def émission bi def nga beneen émission. def nga beneen émission. def nga beneen émission. Mhm. kon yow loom douze métiers nga ci li nga nekk. sama digganteeg wàll noonu la demee. aw ma frontière sama digganteeg wàll yi. bu laajee bale damay bale bu laajee yëkkati bool damay yëkkati bool bu laajee raxas damay raxas bu laajee laajee laajee laajee. sama rakk la mm, mm, mm. mais est-ce yéen a ngi waxtaan ak moom parce que waa yi parfois ni ni Sénégalais yi di wax moom lu ñëw rek ñu mm-hmm. yéen ñi nga xam ne surtout yow mi nga ne sa mm-hmm. yaa ngi waxtaan ak moom di ko jéem a recadrer. tuuti recadrer comme dafa def. ko war a recadrer du question de def def mais. Mm-hmm. waali lu ñëw ñu tudd ko si. ci lu baax. waaw si si côté positif parce que Sénégal moom boo fi nekkee. doo bañ loolu. waaw kon nag jeexal comme nga wax ji xam nga nag waaye. Mm. daa weex donc te xam nga bu fekkee yàlla. Mm-hmm. dalaa jël ubbi ay xolu askan. dugal la ci. Mm. du ñàkk nag dina am ñoo xamante ni ñoom duñ la seen xol ba àdduna tukki. waaw loolu moom. mu ngi mel ni Sonko. <laughs> mu ngi mel ni boo xoolee Macky Sall mu ngi mel ni boo xoolee boo xoolee boo xoolee yow am na ñoo xamante nii fi mu toll heure buñ la gisee zappé mm-hmm. mais am na ñoo xam ne heure buñ la dañuy toog jàkkaarloog sa jëmm ji di tuur xéwal mm-hmm. ndax cofeel gi am ci yow àdduna noonu la demee mm-hmm. d'accord léegi problème am ak euh, Thiat Seck mi nga xamante ne nii tout récemment euh, génn na wax ni Wally sekk daf ko may oto boo xamante ne nii baaxul yow bu nga déggee kàddu yooyu noonu ban yëg-yëg nga am. puisque c'est ton frère yëg-yëg bi ma am mooy première fois dama jàpp ni dafa juum. Hmm. ma ni dafa juum. Hmm. parce que bi bi nga xamante ni mu ngi mu ngi yëgal waali soirée mi. ne dama bëgg nga ñëw sagal ma parce que il faut nekk fekk naa la fa waali ne ko dinaa ñëw. Hmm. mag waale ànd ba ñuy dem. waaw. bi ñu demee waale ñu fekk ci bunt bi yëpp yàlla dafa dogal mu jëndal leen ay billets. ñoom ñëpp ñu dugg. bi ñëwee Thiat Seck di ko way mu koy may koppar. Mm-hmm. di ko may koppar di ko may koppar ba yaramam mm-hmm. tàng mu def nii bis Tafa Ñing. kuy Tafa Ñing kenn la ku bokk si ñun instant bii dafa voyagé mu ngi États-Unis mm-hmm. comprendre nga. dañu ko alma sa di ko wal di wax alma sa caabi boo fekk waale xamul oto Tafa Ñing dafa ñuul wala dafa vert. xamul xamul. comprendre daal di jël caabi di jox ko. léegi am ku àndoon ak caat hmm. moom yàlla dogal moom moo dem récupérer këyit yeeg yëpp dafa ñu hmm. ngi génne ay bagages jour boobu moom moo dawal oto bi caat nekk ci wet bi ba ñibbi ñoom ñaar sama kanam la fekkee naa ko hmm. waaw kon bu ma déggee wax ji première fois bi dama ni dafa juum après nag à laa dégg mu ni juumul baaluwul kenn ma ne ah ko que baaluwul kenn mooy juumul comme que juumul nag daf koy bàyyi ak sénégalais yi lii hmm, mooy indi problème bi ah mais est que nekkul tamit li muy wax dëgg la que ne daf ko jox oto boo xamante ne nii baaxul. xanaa déggoo li ma dégg naa ko xam naa ne. mais kon est-ce que du yéen ñi nga xam ne yéen ay yéen la waali di wax pour ngeen gérer problème yooyu. Mm-hmm. yéen a def erreur boobu. aussi non erreur amu ci yaay buy. oto bi mm. doon daw la. oto bi ki ko moomoon mu ngi dëkk Maris. Mm-hmm. daa dawalee oto bi Maris. ñëw ba almadi d'accord ñëw gaare ko buntu almadi hmm. oto bi jógewaat ba almadi hmm. dem ba fa caat sekk dëkk caat hmm. sekk daan ci dox ay kursam waa mais ndëgam nit mi nga xamante ni moom la yàlla jox xelu mu defar oto day paan asuma ak oto nag d'accord dangay jënd oto léegi mu paan léegi xoolal sa caméra bi du ñàkk caméra bi da ngeen cee filmer ñëw fii. Mhm. mais da ngeen a ñëw fii muy taq def ay kayit ay mbir. Mhm. Hmm? ñu ne ko mais tuddal suñ fàllu mu tudd suñ fàllu mu démarré. mu démarré waaw machine la. que coïncidence la tamit parce que euh, bien avant Thiat Seck déggoon nañ fi benn rapport bu ñu bu dëkkoon je pense ci euh, banlieue bi bu ñuy wax ne sax jot na génn adduna moom ah. itamit problème boobu la amoon ak Wally Seck daf ko mayoon oto. Mhm. ñu ne oto bi baaxul. non waali nee naa la mm. Mm. yaay booy waali lan lay may bu demee bay maye lu baaxul mu bañ a maye am na loo xamante nii parce que nag xam nga am na loo xamante nii yenuwul sax maanaa am na loo xam ne bu fekkoon man maa toog sa place. Mm. man ma la koy poser question sax dama koy tontu. Mm-hmm. parce que xam nga ni logique mm-hmm. kon yéen la. Hmm? kon yéen la. lan si jox ñiy jokkalante affaire yi. déedéet déedéet du ay affaire yooyu nee naa la waale keroog ba muy may oto bi moom moo jël caabi ji ci nit. moom moo ko joxal boppam caat sekk. comprendre nga. Mhm. man waale par exemple mën na ma wax ne ma àndal ak Assane Mesre. Mhm. ngeen dem parking. Mhm. mu xool benn oto bu ko neex. Assane Mesre jël oto bi deux jours trois jours oto bi paat. oto bi léegi kooku wàll la. wàllu mécanicien bi. mais mais kon lan nga jàpp ni moom moo ko frustré ba mu génn wax. li mel xam loolu moom moo koy xam. Hmm. man daal xam naa ni. Hmm. Wally comme ni ko ñu bari xame muy def lu baax def na lu baax may na ko oto <laughs> mais léegi euh, dégg naa si si wéyu béy que ni Thiat Seck dafa woy Wally woo Wally jotu ko. peut-être est-ce que du lu lu. ko animé waaw man xam nga woy bi nag déglu naa ko. woy bi déglu naa ko mais ba ma ko dégloo waxuma ko waxuma damaa bëgg Wally jot ci. bu ma ko waxoon du ñàkk dina ci jot parce que yàgg damaa yóbbante ci Wally. yóbbante jóge ci Wally. di jaar ci man. di dem ci moom. ay teraanga. comprendre nga. léegi nag nee na am na ñu ko yóbbante. xëy na ñooñu wax nañ ko waale xëy na waxuñu ko. Hmm. mais fii Sénégal amul hmm. kenn. ñuy hmm. xool sa téléphone te doo ci gis. ku la vocal te tontoo goo ko liiroo goo ko. ku la woo te jëloo ko. dëgg loolu ça arrive. te waale ay téléphone ni muy sonné ak ni muy ni muy amee ay message bu ko bëggee déglu. ragal naa ni ci lay ci lay fanaan ci lay yentu parce que mënul nekk. Hmm. waa ñi ñi ñi koy woo ñëpp. sollicité dafa bëri waaw comprendre nga. d'accord noonu la demee léegi nag instant bi nga xamante ni moom génne na affaire bi fekk na Wally nekk ci promotion internationale est que kooku dina tal leneen dañuy waxante dëgg. mais hmm. hmm? un coup sax. mais non dégg il faut nit ñi comprendre ne Wally. Mhm. même magam bu jigéen ba muy génn àdduna. fekk Sénégal capitaux moom yi yal ko yàlla yërëm. waaw yooyu yooyu yeneen détail la xam nga. Mhm. soxnaam soxnaam am tout tànk mhm. nekk bitim réew wala nekk bitim réew te demu fa. il faut ñuy sóoraale nit ki. Mhm. ne waale kenn nit la du ñaar ñett. parce am na loo xamante ni li mu yenu dafa xaw a bari. il ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo nekk moom. ñu koy dimbali. waaw d' accord léegi moom que yow wax nga ni ma la déggee ku jege waali nga ñàkkul ni yëg na situation bi nu mu demee mu ko déggee moom ban appréciation la si am. waaw noo def ko dara nag dégguma sax mu wax ci wax dëgg yàlla. ah bon te yàlla xam na ni ñun ñoo nekk démb ba cinq heures du matin waaye parce que toog naa dégg nodd ci la ci laa ñuy bërët daw dem tëddi. nga ni coow li ni mu virale si réseaux sociaux yi waal yi. ci yàlla kër peley. peley billahi wallahi dégguma wax ci waxuma waxu ci de dégguma mu wax ci. Hmm. nekku ci parce que loolu du dara ah du dara. xam nga wàllu affecté wu ko. defu ko dara la ko affecté parce que xam na lim ci jublu lu baax la ci jublu woon après nag léegi boo defee leneen yow garaawul moom lu baax la. waaw boo waxee lii tey daan nga wax leneen. Hmm. loolu lay jël rek teg ci kanam teg d' yaa ngi koy wax léegi euh, Wally Seck ku weex donc la mhm. problème am yamul ci Thiat euh, Seck kase parce que euh, gis nañ diggante mag Sidi Diop du duma ne nag concurrence am na parce que parfois li li nit yi di gis si penc mi rek laay wax mhm. Le fait parfois ñuy sentir que ni Wally Seck ak Sidi Diop comme par exemple ñuy yore Wally ak ñuy yore Sidi dañuy concurrence ante seen waaw ñu yore Wally ñu yore Sidi Diop ñoom mën nañ concurrence mais Wally ak Sidi Diop concurrence ñu parce que Wally magu Sidi Diop la waaw hmm. hmm. hmm. ah, fi nii xam nga solution solution TV <laughs> xaaral rek solution TV <laughs> ak yenn Sidi du concurrence waaw rompi ngeen leen bu au au devant de la scène ñu bëgg a wan sénégalais yi que ni loolu moo nekk. waaw non ñoom moom la ñuy bëgg a wan mais est-ce que sénégalais yi ngi gis loolu. Mm-hmm. waaw parce que tamit xam nga man du li may wan rek laay gis. Mm-hmm. man di nga toog di ma wan li fekk maa ngi xool leneen. capito mm, d'accord léegi problème amul lan moo tax nday ba nday euh, Ndiaye euh, Banaya. Mm-hmm. nekkoon mm, feccikatu Sidi Diop. Euh, mu jóge si Sidi Diop rek ñu jékki-jékki gis ko mu ñëw di feccal Waly. waaw xam na nag ginnaaw Waly. Hmm. dafa yaa te Waly ndey seex la. Hmm. te boo dee kay ndey seex. Waly hmm. Waly mënut a dàq nit. billaahi soxna si. billaahi bu ma la waxoon ñaata personne la Waly di fay danga naan danga naan man Ndiaye Rambo dangaa yokk wala sénégalais yi internet yi ne ma Ndiaye Rambo waxul dëgg. billaahi wallaahi watallaahi Waly ngi fay ñoo xamante ni. xam nga lan mooy liggéeyam. Hmm. soirée bu jotee mu defar ay wasam ñëw di ko. servir di di may was ci mbedd mi. d'accord. comprendre nga ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni Wally moo mënta dàq yàlla bindeewu parce que da ko jàpp ni ku ñëw ci moom rek yàlla ko ko omatal comprendre nga. Hmm. Ndeye Ndiaye Banaya man bu fekkoon am naa lu ma gënal day toog ci Sidi. léegi kon du tax ngeen ni nangu muy ñëw si Wally du nangu xam nga nag. waali waali du njaay rambo hmm. waali du njaay rambo hmm. ngay njaay bànneex daal maa ngi koy gis ci kaw seen bi mais gisuma ni ba léegi mu ci groupe bi maa ngi koy gis ci kaw seen bi nag lan moo tax mu créé woon des polémiques ba coow ñu dégg nit ñi la nit ñi la nit ñi la parce que c'est normal la xam nga bu fekkee nday njaay bànneex yàlla lu mu doon ginnaaw yàlla hmm. Sidi Diop ko ko def ñu jekki-jekki gis ko feneen c'est normal nit ñi di wax c'est normal Mm. loolu day logique quoi. yow Waly sa xarit la. <coughs> Waly sama rakk la. Eh, da nga fidèle si moom. Mm. la. ma ndax sa fidélité ak moom danga koy confirmer. sama rakk la. waaw je sais que c'est ton frère. ana rakk bu dul fidèle ah, léegi yow kon lan ngay def si soirée si di Diop. waaw ah, waaw alhamdulilah question bu ma neex nag man damay dem soirée ñëpp samedi laa mujj soirée si di Diop. fidèle mooy. par exemple li nga ma wax ne Waly. yaa ngi dem solution TV yaa ngi dem Walfadjri <laughs> da ngaa fidèle. non man ñëw ma fi pour ñu waxtaanee man. d' accord léegi waxtaanuma d' accord d' accord. Sa Ndiogou yow laay waxal non non non non xoolal fi noonu Sa Ndiogou ak son yu boo ak Cheikh Niass ak yooyu mm-hmm. ñëw dañu ñëw seet si Ndiaye Rambo. Mm-hmm. Ndiaye Rambo ma laaj la nga mhm. décriral ma sa diggante ak mhm. ma laaj la ba xam tu es mhm. nga ni ma Wally sama rakk la Wally fidèle euh, euh, bu ñuy wax Wally ak kii maa ngi la koy laaj nga ni ma loolu amu fa donc Wally di tëgg fee si di di tëgg fee ma jékki-jékki gis la nga nekk si soirée si di jo non non non non ma waaw ah. Wally bu bu tëggee foofu lay ci wàll lay def parce foofu lay liggéey Sidi Diop bu tëggee fekk waale tëggul ma ah, diggante Pape Diouf ak euh, Wally woon na ay coow bàyyi bul ma ne magam la. parce que coow yi tam. waaw weddiwu ma lool ah mais tamit dañuy génne loolu wax si cadre li nga xamante ne nii moom lañ ñuy wan. Hmm. Euh, societé bi di ko gis. Hmm. Wally Seck ak euh, Pape Diouf tolloon na fu nga xamante nii coow li bëri na. ci kan la jóge woon coow li. ah dé. kenn dégg ko ci waa ji kenn dégg ko ci Pape Diouf n'est-ce pas. <laughs> Ndiaye yow. ah non non non dañuy waxtaan rek dañuy waxtaan parce que man xam naa ne kenn dégg ko ci Pape Diouf. kenn xam naa ne kenn dégg ko ci waa ah. ji. Mm. kon nag wax dëgg yàlla waxu mbedd yi nag wax dëgg yàlla enveloppe la rek boo ko foree loo ci fekk boo ko gëmee yow la mais man gëmuma yooyu. kon yow li jot a xew yëpp yow kon. non non li jot a xew gëwuma ko damaa gëm ni Wally Seck rakku Pape Diouf la. Mm-hmm. damaa gëm ni Sidi Diop rakk Wally Seck la yàlla dogal na. Sidi Diop ak euh, Wally moom ñëpp samay rakk la. Mm-hmm. man damaa bëgg di wane exemple. Mm-hmm. man bëgguma nekk ci ñi nga xamante ni. dañuy wutal Wally noonu man damay bëgg Wally ay soppam chaque jour di doon ay soppam. Mm, d'accord parce que man yàlla dogal na bu ma demee soirée Sidi Diop nit dina wax ci cofeel ci man cofeel boo xamante ni. ne ma dinaa ñëw suba wala dinaa ñëw ginnaaw suba soirée waale ndax geste bi nga def chaque jour ma demee soirée loolu laa bëgg loolu laa bëgg dama bëgg di fédéré ñii bu ñuy wax mm. di ma gis soirée kii mm. di ma gis soirée kële te xam ne man nii waale laay àndal waale laay liggéey mm. dina am lu mu def ci ñoom bu fekkee nit dëggantaan la parce que man wóor na ma wóor yàlla ni Wally Seck xam na ni buñ tiiree woon bal balaa bal bi bee si ci moom xam na ni ma góolu ko Hmm. moom xamal na ko boppam waali ndeysaan ndax ànd la ñuy def muy dëgg sincère du xaalis du succès du koppar parce que yooyu yëpp yàlla dogal na avant koo waali xam man xamoon naa ko hmm. xam naa xaalis xam naa tukki xam naa oto xam naa xam naa xam naa. Mhm. capitaux xam naa bu ñuul xam naa bu weex daal. d' accord mhm. sama ànd moom dafa doon benn affaire bu naturel. Mhm. Ah. d' accord euh, ñu wax leneen muy ñaaxarañ euh, loo su ma juumul ak euh, Awa Balde dégg naa la ngay tontu Californie. Californie kooku bugguma di wax xawam parce que. ñoom yàq sénégalais parce que ñooñu. bu fekkee dafa nii dañoo am kun faral. Hmm. te kim faral ñoom cause bi kim faral di xeex ñoom ni loolu ñoom ñu ngi yàqal ki ni moom la ñuy faral ñoom ay soskat dañ dañ nekk bitim réew di sos. ah mais soskat est-ce na tontu ko. si soskat da nga koy tontu xamal ni ko soskat nga bu fekkee bu fekkee ay morom ngeen da koy wax ni ko ñoom li ngay wax du dëgg. comprendre nga. Mhm. ñoom ñaaxarañ loo bi ñu bëgg a jël bëgg ko def rival du seen rival. ñaaka lañ leneen la leneen la ñaaka lañ doon leneen la. leneen lan. non maanaam ñaaka lañ doon gisuñu ko muy mu muy def ay vidéo di saaga. Hmm. gisuñu ko. Hmm. kan moo gis ñaaka lañ di saaga. Hmm, man de gisuma ko di saaga ay kilifa ak ay dugg ci mais ñoom dañuy def seen live di saaga di di xotti war ma kilifa yi. d'accord. Euh, dinaa wax si keneen ku sorewul ak moom muy euh, ma ma seetlu nag nga nekk taalibe Cheikh euh, Tange Tandia yëkkati woon fi ay kàddu jëmale ko si tarixa boobu noonu nga tontu ko. Hmm. lan moo leen. waaw Tange Tandia dafa yaradiku waxu yaradiku la waxoon mais après génn na ci nag comme que génn na ci nag dañ ciy daal di génn rek. <laughs> léegi yow tant que Tijaan ba nga déggee mu wax loolu même su fekkee génn nga si mais am na lu mu a def. waaw li ma def bu toll ni yow. waaw loolu laa hmm. la ma def. Hmm. noonu laa ko def. ndéem taas mu ngi jàpp ci suñu combat ñun. Hmm. waa Faramareen waa Ramdan capito mais du te man boo jàddee yoon foo mën a bokk naa la xamal ni la jàddu nga yoon. comprendre nga. waaw après nag comme que génn jéggulu jéggulu nag ndegam yàlla la koy def muy jéggale hmm. nit dafa war di jéggale di jëllale hmm. ñu ngi koy ñaanal jàmm hmm. non <laughs> tey furaa ak man de nu demee nii ah pourtant bi ñuy doog a commencé yaa ngi doon wax ñëpp di ree mais da nga ànd ak fermeté daal lu waral loolu nag yow tamit nag xama man sa waay laa ngi maa ngi nga ca papa ju dëggu. ndeysaan. billaahi wallaahi papa ju dëggoo dëggu dëggu dëggu. ah loolu dinañ sa ñëw après sooy tëj su la neexee nga hmm, nuyu ku la neex ku mën naa la hmm. may loolu mais dama bëgg na may kii na may jox ay explication yu clair parce que. Hmm. solution moo lay. mais da ngaa da nga danga danga da nga da nga gàttal wax. solution kenn mënu fi wax lu leerul ndax yéen yéen ay leer. <laughs> waaw loolu moom kontaan naa si wax nga lu am solo solution TV mënuñu maa dékk ay mm. micro te dama ci mm. wax lu leer parce que yéen yéen ay leer mm. parce que yéen yéen ay leeralal askan wi xam nga boo xoolee boo booy seetaan plateau ñoom Sa Ndiogou ak ñoom Assane Messa ak Soyibu da ngay gis ni muy leere bu fekkee yéen tamit dañ lay seetaan yow ak Soyibu ak Sa Ndiogou day leer kon man du ma dékk micro may wax lu lëndëm. dëgg la parce que xam naa ni Assane Mesere mën na ko décortiquer après. <laughs> son son bu noonu. Ah. yow noonu. saa jógu noonu. Ah. boobaa mën nañ maa xeeb te bëgguma ñu xeeb ma te ñoom xam nañ ni dama leen a yàgg gëm. ndeysaan waaw loolu moom dëgg la moom moom xam naa si dara. Ndiaye d' accord léegi kon dañuy waxtaanee actualité euh, si réew mi nga bokk citoyen sénégalais nga. Mm-hmm. tey jii soo jékkee jékki gis situation réew mi fu mu toll ak li jot a xew yëpp nit yi ñàkk seen bakkan lu bari soof ma ci nag hmm. lu bari soof ma parce que Sénégal xamewuñ ko woon loolu Sénégal normalement benn bopp la waroon doon ndéem doonatu ko ngay rus des boo nekkee sénégalais ndax li ngay gis ci sa réew. Mm-hmm. mais yàlla bu dogalee ni moom nga te mënoo cuub sa der mënoo changer sa identité. Mm-hmm. da ngay muñ. taxaar bis bu rafet nga def lu rafet. nga def lu rafet mm-hmm. d'accord gis naa la itam yaay daal yow dafa mel ni yow tu dans toutes le sauces gis naa la. may euh, Maimouna Ndour fay bu 7TV euh, dalal suñu ministre bi yore wàllum éducation. Mm-hmm. di wax si Bassirou Diomaye Faye. Mm-hmm. Euh, ni salafiste la. Mm-hmm. nga am neexuma xam nga boo xoolee même boo xoolee sama vidéo am na fu ñu waxee ni premier ministre bi nu mu tudd. kii doon candidat bi nii. Amadou Ba Amadou Ba. tam tam 3 <laughs> <laughs> waa loolu lañ wax de. waaw kon moom xam naa nag poosam dina noppalu yaramam dina noppalu. maal. waaw jarul campagne am na loo xam boo ko amee jarul campagne. ah da ngay da ngay sonn rek. mais yow gëm nga ni loolu na. non gëm naa ko gëmuñu ko ñoom ko wax. waaw ñoom ñoo ko wax. waaw comme que ñoo ko wax. Mm. ah da jàpp ni ñoom loolu la ñu wax rek. waaw ah, li li ministre de l'éducation euh, boo gisee ma ci vidéo. Mm. bi duma ko xas. Hmm? Mm. waaye nag waxam ji duma ko ci tàgg. Mm-hmm. dama koy xamal ni ko. lan mooy salafis. lan mooy murit lan mooy tijaan lan mooy xaadir lan mooy laayeen. Mm-hmm. xanaa ñëpp duñ ay sénégalais. comprendre nga. Mm-hmm. pourquoi ñu bëgg a jël benn nit bëgg ko tappal étiquette bi léegi may mën a ndur fay nag ni mu ko ni mu ko nim ko nim ko ni mu ko rectifier. daf maa neex parce que daanu ma gis may mën a fay daan doxalee noonu. Mm. dama daan gis mu mel ni da daan. mel ni koy far te man bugguma loolu man damay bëgg rek chaque jour muy dëgg ku wax dëgg nga ne ko dëgg nga wax ak nu mu mënti demee. Mm-hmm. ku waxul dëgg nga ne ko ah lii nga wax nii yaa ñu ko wax. Mm-hmm. jomaay fay wanewul loolu. waaw dégg naa la ngay wax euh, sànq si làmb ji yow dafa mel ni da nga contre làmb ji yow. làmb ji. contre waaw mm, non non dëgg yàlla contre ma ko parce que man làmb ji samay booy rek a ca nekk. Mm-hmm. lamsaar lamsaar ba mu daj. benn mbër fa amoon mu tudd Max Mbergane. lamsaar defe naa ni mbër yi ngay gis yëpp fa la ñu jógee genn wàll mhm. man maa géré woon mag mbapatu Max Mbergane dama ci daan bëre. Hmm. boo fekk mais du woon mbër mais simbkat laa woon boo am doole am succès. d'accord boo fekk lamsaar amul mbër. Max Mbergane moo doon organiser mbapat ma ñëw fa ma daan bëre. boo fekk lamsaar amul mbër boo yi ngay gis ñuy bëri ñëpp ñoom ñoom ñoo nekkoon samay supporters. Hmm. kon man mënumaa bañ làmb. d'accord ba ñu ma làmb mais violage yi ci nekk moo ma soof. yàqu-yàqu yi. waaw ba pare ma gis mel ni dëgg la. Hmm. xam nga ma gis ni ni ñu def làmb ji defuñu ko simb te simb gën a doon. mais sumb nag doxatul nag. kii fii li fi dox amatul <laughs> fi dara doxatul. su coow lee fi nekk rek. Ah. Sénégal moom. Ah. coow dox moom daa am fu mu féete. fan la féete. daa féete ci ñi tuddee milliardaires yi ak millionnaires yi. Hmm. may laaj benn question du maa war a laaj sax. ah mun mais ma laaj ci ah, damay gis musuma gis milliardaire ak milliardaire bu xeex ba kenn rey kenn. Hmm. musuma ko gis. mais damay gis ñun tuddee. néew di doole yi. Mhm. milliardaires yi di leen ruux ñoom ñuy xeexante seen biir di rayante mhm. milliardaires yi di gën di am milliard mhm. di gën di war ci oto yu rafet baadoolo yi di dee guddi ak bëccëg di dugg ci gaal yi question bu ma jaaxal la damay tëdd di ko xaar mais duma xam lu may jox pourquoi ci gaal yooyu sax nag bëgg naa nga wax ak peut-être jeunesse bi naka yi li ma leen wax mooy mm. xam nga awma droit ne kenn bul dugg ci gaal bi ndax ku ci nekk nag yaa xam sa mat lal sa lal mhm. man man dund naa di gis sama yaay muy tudd ci ndox di yeewu ci ndox lamsaar tablette yoon lu mat trente ans ou vingt ans hmm. chaque nawet ci mbedd mi la ñuy toggee ci mbedd mi la ni añee man ak samay rakk sama papa sama yaay sama famille yëpp. ndeysaan bu tëdd jotee dañuy yëkkati lal bi teg ci ay briques pour pas bi tëdd ñun ñu mën a dajaloo ci benn lal bu ñu yeewoo suñu suñu tànk ci ndox lañ koy teg. Mhm. jamono jooju bu fekkoon gisoon naa velo mhm. sax dinaa ci dugg dem. Mhm. xam nga senegal yaay booy am na ñuy dund lu tar lu doy waar billaahi wallaahi tallaahi am ñuy dund lu méttee métti man des fois damay comprendre booy waaye damay comprendre booy des fois parce que man ñoom fi ñu toll nii man bëggumaa wax fu ko triple mais fu ko gën yéeme man li ma daan man sama loxo yi dama daan jël dugub di ko soq ba mu nekk sunguf di hmm. ko billaahi wallaahi boo fekk machine am na mais juróomi dërëm bu ñu walijee sama yaay du ko am pour jox ma ko. t'as raison. amuñu gaz man maay dem wuti ay matt sunu atelier bi ma doon liggéey menuisier ñëw xamb man maay yenu leget bi dem yóbbul sama yaay commencé jaay sama yaay ñëwee ma dem benn heure bi ma dem jëli ko yenu leget bi li may wax wàllam saa rek may dégg table teewaat fii ngay dégg mbëri nii. Hmm. mais yàlla dafa dogaloon nag lamsaar ñoom ñëpp respecté woon man ndax man ni ma meloon sama yaay ni ma jàpp sama yaay. ñu xam ni kii ku am fit la. <laughs> lu waay ñime ñime na ko. <laughs> dugguma ci dara. du ma tuux du ma naan sàngara dugguma ci affaire yooyu te ma munoon koo def parce que am naa fit bi may gis sama yaay di sonn est-ce xam nga ni man ànd naag sama yaay di yalwaan. Hmm? billahi wallahi tallahi billahi barki sëriñ Babacar Si oh là là. sama yaay dafa ay seex aadama ak awa sama yaay daan boot aadama wala awa mën na boot ki ci des. yaay seex waaw. ñu dem pompier wala Sandaga. ndeysaan. di yelwaan damay toog te aadama wala awa nga gis maire bu gaare kat katam sol yére yu yànjam takk ay oram wàccee verre bi jox sama yaay xaalis wala mu jox sama yaay. paquetu suukar. ma xool maire bi mu xool ma ma xam ni ko yow mii am nga lu ni gañ mais billaahi gënoo sama yaay ma xam ko léegi nag man yooyu yëpp bu ma ko dundee lu bari du ma lu bari duma ma gondi comme liy gondi ñu bari gondiwu ma man lu waay am ci réew mii bu ma neexoon am ko mais am na lu may jomb lay jomb damaa am jomb jomb man bugguma di dox di sëgg kenn di ma joxoñ suba di yaa ngi taal. <laughs> d'accord euh, métti na trop sax nag euh, vraiment mais bon euh, nañu delluwaat ci ci ci ci ci kaf geeg xee gi parce que yow dafa mel ni si ni kiiwal Anta Babacar si nga bokk. ndax gis naa la nga naan ñoo bokk dëkk suñu piki nag. Mm, waaw waaw dama def vidéo bi certes. da nga koy politigal. non non non parce que xaw ma ko xaw ma ko sérieusement. ah déet xamoo ko kon loolu la dugal si. li ma ci dugal laa lay wax. li ma ciy ah. dugal mooy jigéen la te sama yaay jigéen la dama fonk sama yaay. ma gis moom muy jàmbar ma gis ko mu nekk ci àll bi ndeysaan di wut ay parrainage ma gis li muy daj. mais li muy daj la ñeneen ñi di daj di. waaw waaw loolu laa lay expliqué non du ñëpp koy daj. ah de gouvernement bi Khalifa Sall demul fii Malick Gakou ak Ahmed fii ñu gaase leen. waaw ñooñu PDF Pape Djibril Fall. donc waaw moom laa lay expliqué hmm. wax léegi xam nga ñooñu dafa waxuma si ñoom. Hmm. parce que ñooñu ay góor lañ bokkul ak kii nga xamante ni jigéen la comprendre mais c' est pas la première fois ñu gis jigéen bu dem présidentielle présidentielle yi ñu weesoo. ay ñoom Juma Jeng Jaxate ñoom. Ah, lu leen wutalee. weesu ak élection bii non non lay boole. non sax du benn bii bii beneen la lii leneen la élection bii élection yii ñëw. Hmm. bu fekkee dina leneen la. man la jaay. Hmm. parce que affaire kii yi ngay def xaw ma barki Serigne ka si xaw ma ko. xawal damaa dégg gis ay vidéo ma gis ni mu koy sonalee. ma xam ne jigéen am na courage ma dégg mu expliquer ci jaar jaaram tuuti xam nga jaar jaaram xam nga et ma dégg mu ni la juddoo Dominique man ma juddoo Dominique. ak deret boobu day yëngatu par force la nag. Ah, mais c'est pas nit ki da ngeen bokk dëkkuwaay wala ngeen bokk koñ rek li muy def war nga ko si défendre. non je pense que yow ay idée du dama koy support wala ma ànd ak moom parce que xamuma ko. mais nee naa la deretu Pikine bi yëngu. Hmm. waaw loolu tax ma def vidéo boobu. Hmm. billaahi xawma ko billaahi barki Serigne Babacar Sy. ah billaahi xawma ko. léegi ñoom xalifa Sall nag loo leen di wax. Ah. nu Khalifa Sall moom bëgguma wax ci waxam quoi. Hmm. waaw parce que Khalifa Sall dal man dama jàppoon ni góor yàlla la mais moom dañ koy diriger quoi. kan moo koy diriger. Bart. lu Bart def. Bart moo koy diriger parce que man Khalifa Sall coow li li muy bari bari dégguma mu wax Bart laay dégg muy wax. li Bart di wax di wu ci kawam. kon moom la. mais est-ce que moom mën na si dara. mënal na dara Bart war na si mën dara. parce que nag xam nga moom avant avant moom mooy magu Bart. dëgg la ñoom ñaar ñoo ànd liggéey mais nag xam nga boo gisee sa rakk di def loo xamante ni anormal da nga naan ko anormal li nga def ni baaxul. mais bu fekkee waxoo ko dara. Hmm. ñu mën jàpp ni yaa ngi yaa ngi moom a ànd ci li mu wax. d'accord Barthélémy Dias ak diggante ak daf ma daf ma rusloo diggante dama ci am kersa ci Barthélémy. Hmm. waaw parce que dama déggoon dama daan dégg Barthélémy ne doomu ndeyam ma ne ko doomu ndey moom def naa sa doomu ndey doo gis mu nekk ci tolof tolof. Mhm. ngay génn di dal ci kawam. waaw parce que nit ki nga ni ki nga sa doomu ndey la. Mhm. boo gisee mu nekk ci tolof tolof da ànd ak moom ci tolof tolof. d'accord bu tolof tolof gi seddee nag après mhm. boo koy teg tolof tolof yow nga teg ko ko. léem doomu ndey dañ ko teg tolof tolof. d'accord am na solo dañuy ji xale nag ba tey damay ñëwaat si Wally sa xarit sa frère bi ne waaw moom. lu ma dem si verse jàmbur bi tamit nag voler la vedette. Ah, dem dem si si bersi si dikk bi waaw Sidiki du jàmbur ci moom Sidiki frère am la. Hmm. Sidiki rakku rakku mu dem rek. gaa yi naan waali waali waali waali. waaw mais xam nga nag xam nga nag xam nga nag ndox moom. Hmm. jën kenn du ko laaj ndox ah, ndax xam na ko. Mm. comprendre nga. Mm. te xam nga nag foofu waali dem bañ naan waali waali waali da koo xam da ko miin nag. ah mais yëfu jàmbur su jàmbur la nag. waaw déedéet déedéet yëfu jàmbur jàmbur ci la nag. <laughs> Eh, ay man. yëfu jàmbur waali la may ndurool de. non non non non waali waali waali xam nga nag frère am moo ko moo ko moo invité def ko def ko donneur boobu noonu. parce que boo xoolee sax suñu papa yi suñu bërki démb. fale yu papa moo ko invité. Mm-hmm. mais fi Wally Seck génnee. fa la fa la fa la papam génnee muy Youssou Ndour Mm. waaw da xam ne loolu ngay xamee dayoo dayoo waali da xam ni mm. kii xam nga mm. bis bi du ci woon lu ndaw bisam la woon waaw d'accord <laughs> Ndiaye en tout cas yam na am xarit ba mel ni yow défendre nga sa sa sa sa sa frère bi de comme il faut défendre ah. xam nga nit ñi dañuy jaawale défendre ak dëgg daa billaahi duma défendre waali ah. billaahi bu defee lu deful ma ko ko dafa fekk nag ni Hmm. waale bu defee lu defewul damaa amul droit man di ko indi ci pénc bi. Hmm, da koy yedd si suuf waale xam na ne bu ma ni ko hmm. may ñu jàmm ak salaam. lan la ma a def lu defewul ba nga dem dee ko ne ko yow li nga def ah, nii da nga bëgg ma wax ko ci pénc bi. <laughs> doo ma ko dee. dama ni <laughs> waruma koo wax ci pénc bi parce que du respect. du respect. d' waaw en tout cas. xale bi nga mais bu fekkee nag nit ki koo dee. ci biir néeg déggul. Mm. nga dee ko ci biir néeg déggul. Mm. nga ñëw ci ëtt bi déggul. Mm. bu la neexee génne ko ci penc. mos nga ko wax dara mu dëgër bopp. Euh, waaw mënul ñàkk nag mënul ñàkk parce que nag dafa xaw a <laughs> xaw a woowle nag. yee dafa yéene jikko bi gars di gis nii. waaye yor beneen jikko de yaa ngi. ah bon. billaahi wallaahi tallaahi. ndeysaan yoon bi ñu jukkalee waaye lu ko doy waar la. ndeysaan ayca mi ngi noonu te ma lay bàyyi nag nga tàggatoo ak eh, internet yi la doon suivre. Euh, su fekkee am na message boo bëgg a càllale waale aussi. Euh, waaw yow di la gërëm encore une fois di gërëm waa solution TV di gërëm caméraman bi. Mhm. Assane Mesere Sanjoogu ak Soñebu. Mhm. wax dëgg yàlla di leen siyaare ah di leen siyaare carrément macha allah. Sénégal jox na leen bopp lu tax ñu jox leen bopp parce que yéen nekk ci bopp ya parce que gis nga. Mhm. donc ginaar nit ñi dañoo jàpp ni pour jur wootu kese la. mais mën na jëriñ leneen. di gërëm soxna Aïdara Karara chaque une grande tombe y a une gros gros grande eh? te un gros gros grande dame eh? di ñaanal yàlla di ñaanal yàlla Sénégal gépp di ñaanal yàlla sama yaay hmm? Kandji Socé ndeysaan hmm? yow yaay sama fii ndeysaan coow li bari bari yow la bëgguma ku dul yow xawma ku dul bëggumaa jàppale pour lu yow yaay sama xarit. ndeysaan góor gi Ndiaye maa ngi lay siyaare papa. maa ngi siyaare samay samay samay samay samay tuut tànk. Mm-hmm. Hmm? di siyaare Assane Assane Mesra ndax moom xam nga dañuy déggante lu bari sama xarit la sama la ku baax la. ndeysaan ku baax la. te bëgg naa Sénégalais yi tamit gën koo déglu xam naa ni ñu ngi koy déglu mais dama bëgg ñu gën koo déglu. di ko mm-hmm. dégloo xel. lu mu wax jàng la. ah astafirullah man boobu. lu mu wax maa ngi ciy jàng. Ah, loolu tax ñu nommé ko le meilleur chroniqueur du Sénégal. te <laughs> moo ko nommé loolu ah, moom daal moo. xëy xëy rek rek ne ko ko man Assane kenn mënu koo comprendre. boo demee nga ni borom tarixatul yëngalatun. waaam mu changé tarixam bi. ah mu tuddee ko tarixatun jàmmatun dëggatun. parce que hmm. Sénégal fi mu toll nii. Hmm. te ñoo yëngal ndax mënuñoo yëngal dara loo yëngal. ah lii moom message la nga ni waxaat ko. man ah. boo demee nga ni borom tarixatu yëngalutul. Hmm. mu changé turu tarixa bi tuddee ko tarixatu jàmmatun tarixatu Sénégal dëggalatun parce que fi mu toll nii moom tarixam bi boo gisee bariwul bayre fi mu toll ci ah, yëpp déet nag yëpp dana dëpp yëngalatun tarixa bi dem ba jéggi frontière nga ni bariwul bay moom tarixa bi moom tarixa bi moom doxul quoi ah dañuy man man moom ci yéen moom sérieusement fekkoon eh. dëkk bi eh. lépp di yëngatu ngeen tuddee ko noonu mais dara yënguwul nee ah, jamono ji waaw. dara yënguwul sax c'est vrai. dara yënguwul. Hmm. moo tax ñu doon. tuddee leen ko tarixatul ah, la ko ah, hmm. dogal ki sanc Walfadjri yi muy. sam papa dama ko bëgg. ndeysaan. waaw dama ko bëgg paa boobu. du ma toog àjjuma bu ma ko dugalul estati xalaatuma ko. Hmm. dafa bokk ci sama. Mm-hmm. waaw ñu am sama numéro di xool sama statut par àjjuma xam nga noonu demee. borom baax nga. di gërëm sénégalais yi tamit. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. di sant sénégalais yi bu baax a baax ci ñi nga xamante ni. Hmm. xam nga. ni muy demee nii. xam nga parce que tamit ñu nekk ci kaso bi tamit ñu ñaan yàlla yàlla génne leen. allahumma amiin. ma leen ni muñ loo. dafa am ku tudd sama xarit bi maa ngi xaw a fàtte tur bi. Mhm. boo xoolee Ousmane sonk bu mësaan nekk ci oto bi moom mooy yor drapeau bi. Euh, Azura Fall. Azura sama xarit la. waaw mhm. sama xarit la mais sama nit la laa bëgg. ndeysaan. Hmm, sama soppe la. am na sama numéro am naa numéro. wallaay daan déggante ba mu amul yéene yóbbu ma ci Ousmane Sonko. Oh waaw xam nga. Mhm, ma dégg ni am na jolof daf jafe-jafe mhm. waaye yéen la rek te yàlla ko ko yenn mhm. te yàlla bu la yenee dara xam na ni attan nga ko mhm. boo ko attanul woon du la ko yenn mon frère ñu ngi lay ñaanal yàlla di ñaanal bis ni yëpp ñu nekk ci kaso bi yëpp Mm-hmm. Ah, te defuñu dara di leen ñaanal yàlla yàlla génne leen allahumma ñu dee ci réew mi tamit yàlla xaare leen àjjana allahumma amiin gépp jàpp naa ne ñu ngi àjjana amiin yaa rabbi ko yàlla suñ borom bi ah, nangu comme ni nga ko waxee rek dañ koy jaajëfal bu baax a baax ndax moom suñu soppee la ñun moom la ñuy topp moom itam ñun lay topp comme ni mu ko waxee rek du tardé suñu benn émission bi yaa ngi ma fekk studio bu la studio bu la hmm? papis euh, papis Papis Ndiaye Papis Ndiaye xam nga yu neex yi ngeen dégg ci wàll si eh, fii la wàll di enregistré daal maanaam macha allah wax tamit ki nga xamante ni mooy njiitu réew mi ah. nekkoon ko ji seex nga hmm. ndey ji seex boo tëddee côté rek. Hmm. yaa bu tëddee macha allah jërëjëf euh, Ndiaye euh, Rambo sa sant bi rek moo ma a hmm. jaaxal mais bon noonu la ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax borom baax la et puis euh, gis nañu ni ñu dalalee yaatal ñu ba ñu xaj fi hmm. vraiment ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal yàlla suñ boom yokku la jàmmal la jàmmal sa fami may sa yaay wér ak yàlla yàggal ànd bi. bi sa diggante ak Wally Seck yal na ko yàlla suñ borom bi def Aïcha mi ngi noonu Fallou ñu ngi jaajëfal nag képp koo xam ne rek yaa ngi doon bàyyi xel ci solution TV solution info euh, di jaaf jaajëfal itam euh, la meilleur chroniqueur du Sénégal mi nga xam ne saay su moom may gunge euh, jaajëfal sama caméraman bi nga xam ne mooy sëriñ Fallou sànq ba ñu jaaxlee Rambo daa woo Serigne Fallou rek yëpp mbir yëpp daal di décanté woon kon nag eh, jaajëfal war naa la Babacar Sy taalibe <laughs> sëñ Babacar Sy waaw la caméra bi paan mu woo bi <laughs> tàkk <laughs> ñu ngi leen di jox dig daje nag euh, beneen yoon ak euh, beneen euh, invité incha allah